mbokk yi déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci suñu numéro 85 Sud Éducation ni ñu koy defee saa su nekk maak Mariam ñoo bokk plateau bi Mariam asalaamaaleykum. wasalaamaaleykum ayda Mariam loo ñu indil ci waxtaan wi. suñu waxtaan wi tey nag mi ngi dem ci wàllum yar maanaam ndax ñun ñi waajur yi mën nañu fexe ba suñu yar mën a nekk yar boo xamante ni dafa amu ci benn jumte ba nga xamante ni euh, dafa jaar yoon. mais loolu est-ce que mën na am parce que yar dafa metti hmm. non est-ce que waajur boo nga xam ne yaram amul njuumte yaram dafa jaar yoon ba ku ko gis ni kii moom xam ne lépp ci affaire yar est loolu am na ah loolu nag Aïda jafe jafe naa gis mhm. xam nga mu gisuma yëpp xamuma yëpp aussi waaye xam naa ni loolu moom jafe naa gis mais nag waajur boo xamante ni dafa bëgg ci xolam ni yaram jaay yoon loolu déjà nekk na daal lu baax ndaxte waajur boo gis dafa war nekk di gëstu foo ko fekk dafa war a nekk di gëstu di xool naka la mën a def ba nga xamante ni yaram ay doomam euh, nangu ko ay doomam accepté ko ba nga xamante ni dañ koy def lu mu leen wax ay doomam déggal déggal ko ba nga xamante xamante ni seen seen yar dina jaay yoon te ñoom ci seen bopp dinañu am comportement boo xamante ni mooy mooy comportement bu baax moo tax euh, waajur foo ko warul nekk rek di yar doomam noonu wala di roy ci yenn nit euh, li mu war a def mooy moom ci boppam toog xalaat essayer xool moom ban valeur la bëgg a may jox ay doomam euh, ak ban yar exactement la leen bëgg a jox yan mag la bëgg seen ay doomam di dooni ba suñu demee ba nekk mag loolu mooy li ñuy waxee ci nasaraan projet éducatif mooy dëgg-dëgg xam yow ban yar nga bëgg a jox sa doom tey nag euh, comme ni ma koy waxee saa su nekk ci émission yi mooy yar le waxtaan ak euh, suñu ay doom daf ci bokk dafa nekk sax benn élément bu boo xamante ni dafa am solo ci yar mooy toog di waxtaan ak suñu ay doom di leen xelal di leen ndigal et di leen déglu itam lool itam dafa dafa baax ci yar euh, bi ci topp nag mooy di leen wan ni dañ leen bëgg ndaxte ñun dañu waaju boo gis bëgg na doomam lool sax ba xamante boppam mais tam xale yi il faut ñu wan leen loolu ba ñu xamante ni ñoom dinañu xam ni seen seen waajur dañ leen bëgg ci seen xol te itam duñu bu ñu tàyyi di leen wax di waxaat di wax di waxaat di di digal di digalaat ba nga xamante ni xale bi dina dem ba comprendre li li ko li ko waajuram di wax di ko essayer expliquer ba moom itam euh, comportement bi dina nekk comportement bu baax mais Mariem waajur bu dem ba xam ne wala sax mu koy laaj boppam ah que ne xëy na joxewul yar bi ñu war a joxe est-ce que moom ci boppam dafa war a toog ne man il faut ma def lépp pour nekk parent bi nga xam ne waajur bi nga xam ne moo gën ci waajur yi nga xam ne yar bi may jox sama doom yi njuumte du ci am est-ce que dafa war a toog ba di di seet ba war a def loolu atteindre objectif boobu. Euh, loolu kañ waajur yëpp dañ ko dañ ko war a teg dañu war a teg seen bopp pression boobu ndaxte loolu boobu mooy benn pression stress bu baax la ndaxte euh, munuñu rek toog di yar suñu doom comme ni mu ñu neexee wala di yar suñu doom comme ni ñu arrangé ñun aussi parce que dañuy gis ay waajur yoo xamante ni ñoom ni ñuy yaree seen doom ñoom rek la arrangé xalaatuñu ci xale yi gis dinañu gis sax ay ay waajur yoo xamante ni dinañu génne seen doom école wala ñuy seetaan seen doom muy mu mu xëy suba rek dematul école parce que ñoom daf laajee xëy na xale bi daf leen jàppale ci biir kër gi wala xëy na xale bi dañ ko yóbbaale fi ñuy liggéeyee loolu yëpp xam nga dafa nekk benn yar boo xamante ni waajur bi kese la arrangé alors suñuy yar suñu ay doom dañu dañ ci war seet suñu doom lañ ciy seet moom la ñuy jiital ci su ci suñu préoccupation te loolu nag lan lan lay laaj mooy comme ni ma ko waxee sànq mooy di gëstu fu ñu nekk rek ñuy gëstu te xale suñ ko xoolee bu baax dinañu xam est-ce que yaram jaar na yoon ndaxte xale boo xamante ni euh, ñu ngi koy yar comme il faut amul dara loo xam xamante ni amul euh, amul doo du ko metti dafa nekk xale buy ree xale boo xamante ni su demee école dina jàng euh, même su fekkente ni du du premier classe am sax waaye au moins dina dina dina jàng dem école dina ko neex te itam dina nekk benn xale boo xamante ni euh, dëgg-dëgg su api ñun sax ma pardon suñu waajur yi suñu gisee ni xale bi nekkul xale boo xamante ni dëgg-dëgg ne dafa dafa épanoui ma maanaam dafa bëgg bon ñu mën a wax suñu bopp ni ah xëy na ni ma koy yaree du noonu ba pare nag ñu changer ko essayer yeneen façon yar ndaxte ay façon yi dañoo bàyyi. waaye ci fànn boobu Mariem bu fekkee ne yow da nga xam ne que fi mu nekk nii vraiment juub nga am nga doom amaat doom yar nga ba sonn xale yi daal meluñu ni la ni la ni la neex est-ce que mën nga dellu si ci loolu yëpp comme ni nga koy waxee nii wax nga sax ne mun nañ ci dellu si mais est-ce que parfois c'est vraiment pas trop tard yi màgg nañ ba pare wala sori nañ daal ci yar bi. ah trop tard nag moom ci wàllum yar amul ndaxte euh, même su fekkente nii da nga jël benn sa sa xale nga dénkaane ko ay ati ati at soog ko dem jëli wala su fekkente ni euh, yow du du du loo tànn sax waaye da nga toog ay at gisoo sa doom wala su après nga nga nga récupérer ko wala su fekkente ni aussi xale bi dafa metti metti ba nga xamante ni da nga ko mujj bàyyi gedd ko ba bàyyi ko noonu rek loolu yëpp mën nañu mën nañu dellu si ci loolu yëpp ba pare réparer li ñu li ñu defoon li nga xamante xamante ni dañ ko raté ci éducation bi ñu ñu ñu dellu si ci réparé ko ndaxte yar daal euh, dafa nekk daal loo xamante ni waruñu ko mësa a abandonné même su fekkente ne xale yi dañoo dem sax ba mag mën nañu toujours di waxtaan ak ñoom wala di leen wax sax wala sax di leen balu àq ndaxte loolu war na am ci éducation di balu àq sa doom parce que xëy na am na benn benn époque vie am àddunaam boo xamante ni euh, da nga juum ci ci yaram Euh, léegi Mariam naka la benn waajur mën a xame ndax mu ngi ci yoon bu baax bi wala ndax nekkul ci yoon bu baax bi lan moo ko mën a daal may mu ne ah fi mu nekk nii ni may yare noonu la wala ni may yare ah xëy na du noonu Ah, comme ni ma la ko waxee rek xale boo xamante ni moom dëgg xale boo xamante ni ya yaram baax na mooy xale boo xamante ni soo ko gisee xam ne xale bii dafa bëgg xale bii dafa équilibré mi ngi mi ngi tëdd fu baax mi ngi mi ngi euh, dem jàngi euh, mi ngi lekk lu baax te itam moom ci daf suy wax di nga gis ci waxinam que ni kii dañ ko yar et moom ci boppam du du nekk kenn ko xamante ni dafa ragal a wax ak ay ay waajuram ndaxte kenn du ko dóor kenn du ko gëdd kenn du ko saaga lool te kenn du ko ko jàññi kenn du ko toroxal ci kanamu nit loolu yëpp di nga ko gis ci xale su ko am yenn xale yi suñu amee yenn comportement ya di nga xam ne xale bii nekkul xale boo xamante ne dafa bëgg te loolu soo ko gisee ci sa doom rek war nga xam ni yow am na daal lu jaar yoon ci sa biir ci sa yar nga essayé ko corriger au lieu ngay wax ah xale bii moo am problème Euh, am na ay euh, waajur yoo nga xam ne Mariem xalaat nañu ne comme ñoom dañu seen yar dafa metti dafa dëgër dañu sévère dañuy tere dañuy bàyyi doo génn doo def nii dañuy xalaat ne ñoom seen yar moo baax bu ñu aussi bu fekkee ne ñoom wàll yàlla may na leen lu nekk indi nañ ko ci kër gi tëdd fu baax jàngi école yu baax et cetera ñu xalaat ne lépp baax na est rek doy na. ah loolu kañ doyul et puis sax ci waxoon nañu def nañ benn émission ci sévérité maanaam nekk ay um, yar yu méttee métti euh, xëy na sax dinañ ci dellu si waaye yar bu métti aussi euh, dafa dafa waa dañ ko dañ ko war a wàññi tuuti ndaxte xale boobu bu dem ba ragal ay waajuram loolu tam baaxul ndaxte xale boobu dina sax def ay yoo xamante ni baaxul ndaxte day nëbbatu foo ko fekk mi ngi nëbbatu te xale buy nëbbatu di def dara loolu baaxul yàlla tere li mais nag ay waajur yoo xamante ni ñoom seen euh, macha allah seen poche xóot na ba nga xamante ni euh, lu nekk mën nañ ko jëndal seen doom ñu ngi leen di yóbbu ci école yi gën wala dinañ ñu ngi voyager ñu ngi sol yëre yi gën loolu di di def ay sorties ak yooyu loolu loolu yëpp baax na mais su fekkente ni waajur bi loolu yëpp daf koy defloo yeneen nit te moom du ko du ko partager ak ay ay doomam loolu tam dafa nekkul yar boo xamante ni dafa jaar yoon ndaxte xale soxlawul alal xale soxlawul nga koy jëndal lu nekk moom li mu soxla mooy yu ay waajuram dañ ko bëgg ba pare di ko di ko di waxtaan ak moom di ko déglu di passer temps ak moom au lieu que ñuy fay ay nit pour que ñooñu def ko ba pare ñoom ñu bàyyi leen ak yeneen nit ba pare comme ni ma koy wax seen autorité parentale ba nga xamante ni du ñoom ñooy yar seen doom ñeneen ñooy ñooy ñooy yar seen doom xale li mu li mu gën a soxla mooy ay waajuram uuf ko Euh, jërëjëf Mariam ci leeral yi ni ñu koy defee saa su nekk di leen fàttali ne fagaru moo gën feju fagaru moo gën a yomb feju euh, coronavirus bi nañ ko moytu te yàlla dimbali ñu ci asalaamaaleykum. merci Aïda à bientôt. bonjour chers auditeurs bienvenue dans ce numéro 84 de Sud Éducation en compagnie de Mariam bonjour Mariam. bonjour Aïda. Mariam aujourd'hui nous allons encore continuer à répondre aux questions de nos auditeurs puisqu'on en a décidément pas mal et la première question que je s'appelle Lamine et qui nous demande si on doit forcer un enfant qui refuse d'aller à l'école élémentaire. Pardon. Alors, euh, cette question, elle est très intéressante. Euh, je, je, pense qu'effectivement, euh, beaucoup de parents peuvent se poser cette question aujourd'hui, c'est-à-dire se demander est-ce qu'un enfant est obligé d'aller à l'école C'est une question qui a été tranchée dans beaucoup de pays dans le monde mm. parce que euh, dans beaucoup de pays les parents ne peuvent pas choisir et l'enfant ne peut pas choisir. voilà pourquoi je dis que la question intéressante parce que ici au Sénégal les parents peuvent encore choisir et donc d'une certaine manière les enfants aussi. Euh, donc pourquoi dans beaucoup de pays on a décidé que les enfants ne pouvaient pas choisir et encore moins euh, eh parce que tout simplement Voilà. Euh, L'avenir d'un pays se décide sur les, blancs, sur les bancs de l'école. Et dans de très nombreux pays, et je pense que le Sénégal ne fait pas euh, exception, le budget du ministère de l'Éducation nationale est le premier budget de l'État. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est dans ce ministère, eh c'est à ce ministère, pardon, que l'on donne le plus d'argent euh, pour organiser les études des enfants, mais aussi les études des, euh, des, des, des adolescents et des plus grands, donc la formation professionnelle. Pourquoi Parce que ce sont ces enfants-là qui plus tard vont tenir les rênes du pays et ce sont ces enfants-là qui plus tard vont permettre à leurs vieux parents de toucher une retraite, de s'occuper d'eux. Donc oui, l'école indispensable. Et surtout l'école élémentaire, parce qu'à l'école élémentaire, on l'a, d'abord appelée comme ça, euh, on y, apprend les apprentissages euh, élémentaires, voilà, qui sont essentiels euh, et qui vont permettre à l'enfant de savoir lire, de savoir compter, de comprendre un minimum son environnement, de reconnaître un danger, etc. Et des choses donc que ses parents ne peuvent pas lui, euh, transmettre à l'école, intégralement. Et puis, euh, je pense que j'en profite pour le dire, l'école devrait être obligatoire ici et partout ailleurs, jusque, jusque même en terminale, parce que au collège, euh, eh bien, on va apprendre des choses un tout petit peu plus complexes, un peu plus techniques, et puis au lycée encore plus techniques. Et finalement, donc, quand on arrive au moins à la, à la fin de, de, de, de la, du lycée et qu'on arrive euh, en terminale, eh bien, on a quand même un panel de connaissances, euh, on a une base qui est suffisamment solide solide pour faire n'importe quelle formation, y compris une formation directement, même en entrant dans une entreprise, même pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'études supérieures. Donc, j'insiste beaucoup, c'est la responsabilité de chaque famille, d'envoyer son enfant à l'école, et pas seulement de l'envoyer à l'école, de le mettre dans des conditions de réussite, c'est-à-dire de lui acheter tous les outils dont il a besoin pour pouvoir réussir à l'école et de maintenir cet enfant à l'école, quelle que soit l'envie de l'enfant, quelles que soient ses objections, il faut bien sûr les entendre, il faut bien sûr y répondre, mais la réponse ne peut pas être tu ne vas pas à l'école. Il faut insister là-dessus. Un enfant n'a pas à décider s'il va à l'école ou pas. Il y va, point barre. Euh, deuxième question, euh, Mariam, c'est une question que nous pose Astou et qui nous demande comment faire avec un enfant qui ment tout le temps, qui continue de mentir même lorsqu'on le bat et même lorsqu'il est pris la main dans le sac. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, c'est une question vraiment intéressante, celle-là aussi. parce que euh, elle a presque devancé une envie que j'avais de faire une émission sur le mensonge. On <laughs> Donc euh, et on la fera quand mm-hmm. même. Euh, et cette question, euh, ce qui est intéressant, c'est de se demander en fait pourquoi est-ce qu'un enfant mentirait. Euh, alors si j'avais Astou en face de moi, je lui demanderais quelles sont exactement les circonstances dans lesquelles son enfant ment. Mais il y a énormément de possibilités et je vais essayer peut-être d'en énumérer euh, quelques-unes. D'abord peut-être que son enfant ment parce qu'il a peur d'elle. Euh, euh, où il a peur de quelqu'un dans la, dans la maison, de son père par exemple, ou de quelqu'un d'autre qui l'éduque. Et donc sur des choses même complètement euh, banales, l'enfant va se mettre à mentir parce qu'il a peur de la punition. Alors c'est pour ça que là, c'est plutôt aux parents de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet enfant Qu'est-ce qui fait que l'enfant va mentir Même quand il est pris là et on voit très bien qu'il est en train de mentir, enfant euh, se sent en tout cas délaissé et va mentir pour attirer l'attention euh, sur lui. Donc euh, parce que quand on ment alors que tout le monde se rend compte que qu'on ment et qu'on continue de mentir, ça signifie bien qu'on a envie d'attirer l'attention. Et donc euh, finalement, il y réussit assez bien puisque euh, Astou a été suffisamment euh, inquiète pour nous envoyer une question. Alors pourquoi cet enfant voudrait attirer l'attention sur lui Eh bien voilà, une question que doivent se poser les parents. Peut-être qu'ils devraient lui accorder un tout petit peu plus de temps, peut-être qu'ils devraient devraient euh, lui poser plus de questions, euh, peut-être qu'ils devraient eux-mêmes parents communiquer davantage avec l'enfant. La troisième raison qui pourrait pousser un enfant à mentir, eh bien ça va être de, c'est aussi une manière d'attirer l'attention sur soi, mais ça va être en fait de tirer une sorte de sonnette d'alarme en fait, de dire euh, attention, il m'arrive quelque chose dans ma vie dont je ne veux pas parler, dont je ne peux pas parler, et finalement je vais plutôt l'indiquer de cette manière-là. évidemment l'enfant ne le pense pas comme ça, mais l'enfant va réagir de cette façon. C'est comme les enfants qui ne parlent jamais, ou encore les enfants qui pleurent tout le temps, ou euh, Donc là, l'enfant qui ment tout le temps est peut-être en train euh, de, de, dissimuler quelque chose. Peut-être qu'il est abusé, peut-être qu'on le raquette à l'école, euh, peut-être qu'il est victime d'un prédateur sexuel, etc., etc., ou de violence. Et voilà, peut-être que cet enfant passe par, euh, par ce moyen-là pour, euh, pour, euh, pour exprimer ce qu'il qu ne peut pas dire autrement. Donc mon conseil à Astou, c'est euh, vraiment d'essayer de comprendre. D'abord de faire une introspection, elle, c'est-à-dire d'essayer de d'analyser de, l'environnement de son enfant, d'essayer de voir elle-même dans son comportement qu'est-ce que qu'est-ce qu qui peut provoquer ça chez son enfant, et puis euh, de parler à son enfant et de libérer la parole de son enfant en lui parlant et en essayant de lui faire euh, dire en fait ce qu'il ne dit pas et ce qu'il cache derrière ces mensonges euh, merci Mariem euh, pour cette réponse. Euh, merci à vous pour votre écoute. On continuera à répondre à nos auditeurs. Je vous le demande sincèrement. Respectons les conseils sanitaires par ces temps difficiles. Prenez soin de vous et prenez soin des, des, des vôtres.